asalaamaaleykum daleen ak jàmm ci xarala académie mbokk yi seen xarala académie ñu topp suñu formation Python à wolof tey dañoo ñëw ci benn concept bu am am solo mooy naka la ñuy def ba filtrer contact yi par exemple fii nii man maa ngi connecté wu en tant que Accord Pro te maa ngi gis contact wu ñeneen ñëpp voilà fii par exemple dama connecté wu ak benn compte boo xamante ni bokk la compte bu créer contact yi te man bu ma duggee damay gis contact yi par exemple contact yi ki leen créer mi ngi tudd admin voilà admin moo créé deux contacts yu si okay. léegi admin mu connecté ak admin nga xool voilà contact yi ni ba munaas Mami Ndiaye voilà léegi imagine nga am ay sa contact secret yoo xamante ni bëggoo kenn gis nga ko dul yow loolu naka lañ kese defee si Django par exemple ki créé contact bi rek moo ko mën a gis day ñëw si li nga xamante ni moom lañ naan filter, ma wan leen benn recherche bu simple bu ngeen bëggee def filtre mën ñëw si net bi nga xool Django filtre nga xool nuñ koy gérer quoi bon la sax ben plugin non pas plugin ben package voilà ben package wala ben application bo xam ne da lay permettre nga mën filtrer bon mën nga tamit dem ci documentation bi nga xol nak ngay filtrer voilà léegi ñun nan lañ bëgg utilisateur bi nga xamante ne connecté wu ñu afficher que euh, article yi mu créé kese ok bon loolu yomb na premièrement dañuy récupérer utilisateur bi connecté wu user égal euh, request point user xamal leen ndax existé na wala existé wul xam print ko ci console bi print user ok léegi ma enregistré wan leen ba xam utilisateur bi existé na wala existé wul ci page contact la léegi gis nga ci console bi fii mu ngi nii mu bindal ñu user admin ok kon admin existe na léegi pour filtrer en Django au lieu ngay def point all da def point filtre nii ngay def. léegi mu laaj la fii filtre bi la nga si bëgg dugal nga ñu dama bëgg filtre par auteur voilà léegi ñu dem si table ba donnée euh, par table bi beneen table bi table contact ok léegi fii nii ñun dañoo bëgg filtrer par auteur léegi da ngay copier auteur bi nii ngay jël nga filtrer ko léegi auteur nga def auteur égal user ok donc euh, léegi bu ma defee nii dinaa gis contact yëpp parce que ma admin moo créé léegi ma déconnecté wu connecté wu si beneen compte ngeen xool admin par exemple non Accord Pro par exemple bu ñu bësee Accord Pro def nii kii mënul gis benn contact contact vide la ko bindal parce que du moom moom moo créé contact yi voilà léegi moo leen benn exemple voilà bu nekk boo xam ne bu am solo mu ngi def filtre yu bëri. par exemple am na n boobu woon def nii nga def e e par exemple mën nga def tamit or voilà pour filtrer tamit filtre yu gën a performant filtre yu xamante ni euh, vraiment euh, dafa dafa un peu dafa complexe am na lu ñu utiliser lu luñ tudd kiwi filtre kiwi filtre xamal leen ko balaa ñoo dem non non pas ça jàng kii filter moi query set filter ni que va voilà how to use key object voilà qui qui mo nek ni mu nek lo am for complex object parce que pour un objet complexe lañ utiliser mon mo voilà comme neex nga utiliser ko comme neex tamit nga bañ ko utiliser mais pour le moment daal pour afficher utilisateur yi nga xamante ni utilisateur euh, pour afficher contact yi nga xamante ni utilisateur bi connecté wu moo créé nii ngay def da ngay def contact point object point filter auteur égal user yaakaar naa comprendre ngeen vidéo bu baax merci ba beneen yoon ci beneen tutoriel